jëf ya saar fukk amoon na bis ay nit yu jóge diiwaanu yude ñuy jàngal mbokk yi ne leen ku xaraful ni ko aaday musaa santaane doo mën a mucc pool ak barnabaas nag am ak ñoom diisoo ak werante metti noonu mbokk yi jàpp ne pool ak barnabaas ak ñeneen ci ñoom war nañoo dem yerusalem ca ndaw ya ak njiit ya ngir leeral werante wi kon nag mbooloo mi gunge leen ñu jaar ci wàlli finisi ak samari di nettali ni ñi dul yawut woññeeku ci yàlla ba mbokk yépp am ca mbég mu réy te bi ñu egsee yerusalem mbooleem ñi gëm ndaw yi ak njiit yi teeru leen ñu nettali leen fi ñu jaar ak yàlla fépp ci kaw loolu ñenn ñi gëm waaye bokk ci tarixaab farisiyen ya daldi jóg né faw ñi dul yawut xaraf te ñu dénk leen sàmm yoonu musaa noonu ndaw yi ak njiit yi dajaloo ngir seet mbir moomu ginnaaw werante wu bari piyeer jóg ni leen yéen mbokk yi xam ngeen ni ca njaalbeen ga yàlla tànnoon na ma ci yéen ngir ma yégal ñi dul yawut xabaar bu baax bi ba ñu gëm te yàlla mi xam xol yi seede na leen ci li mu leen may xel mu sell mi ni mu nu ko maye nun itam gënalante wunu ak ñoom ci li mu sellal seen xol ci kaw ngëm léegi nag lu tax ngeen di diingat yàlla ci teg taalibe yi yen bu nu musula àttan nun mbaa sunuy maam ñun daal ci yiwu yéesu borom bi lañu yaakaar mucce te ñoom itam ci lañu wekku bi mu ko waxee mbooloo mépp ne xërëm di déglu barnabaas ak pool ñuy nettali kéemaan ak firnde yépp yi yàlla def jaarale ko ci ñoom ci biir ñu dul yëwuut bi ñoppee noppee saak jël kàddu ga ne mbokk yi déglu leen ma simon nettali na ni yàlla seetse bu jëkk ñu dul yawut ngir sàkku ci ñoom xeet wu ñu tuddee turam te loolu sax dëppoo na ak li yonent yi tëral ñu bind ne borom bi nee na ginnaaw loolu dinaa dellusi te yëkkati këru daawuda gi ne tasar dinaa defar toj-toj ya ba taxawalaat ko noonu li des ci doom aadama wut borom bi maanaam xeet wi dul yëwut ñuy tudd sama tur man dinaa def loolu man borom bi ko wax te ca njaalbeen ba tey ma di ko xamle kon nag lii mooy sama ndigal bu nu gëtën ñi dul yëwut te waññeeku ci yàlla waaye ñu bind leen ñu moytu ñam wu araam wu ñu tuuroo xërëm tey moytu njaaloo ak jur gu medd bay naan deret ja ndaxte ca njaalbéen ga ba tey am na ca dëkk bu nekk ñuy waare ci yoonu musaa bisu noflaay bu nekk sax dañu ciy xutba ca jàngu ya bi mu ko waxee ndaw yi ak njiit yi ak mbooloom ñi gëm mépp fas yéene tànn ci ñoom ay nit yónni leen antiyos ñu ànd ak pool ak barnabaas noonu ñu tànn yudd mi ñuy dippee barsabaas ak silaas di ay njiit ca mbokk ya ñu jox leen bataaxal bu ne yéen sunu mbokk yi dul yawut te dëkk antiyos siri ak silisi ñu ngi leen di nuyu nun seeni bokk di ndaw yi ak njiit yi dégg nañu ne am na ay nit ñu bawoo ci nun ñu di leen lëjal ak seeni wax di jaxase seeni xol te fekk sukkandikoowunu ci lenn ndigal lu jóge ci nun kon nag mànkoo nanu ci tànn ay nit yónnee leen ko ànd ak sunuy soppe barnabaas ak pool ñoom jaay nañu seen bakkan ngir turu yeesu kirist borom bi yónni nañu nag yudd ak silaas ñu di leen xamal xabaar boobu ci seen gémmiñ ndaxte li neex xel mu selli mi te neex nu mooy ñu bañ leen a teg beneen yen lu dul dénkaane yi am njariñ maanaam ngeen moytu ñam wu ñu tuuroo xërëm deretu jur gu medd ak njaaloo bu ngeen moytoo yëf yooyu dingeen def lu baax ci jàmm noonu ñu tàggoo dem antiyos ñu dajale mbooloo mi jébbal leen bataaxal bi ñu jàng ko nag seen xol sedd ci doole ji leen bataaxal bi indil te yudd ak silaas ñi doon yonent ñuy dooleel mbokk yi di dëgëral seen fit ak wax yu bari bi loolu amee ñu toog fa ab diir ba noppi mbokk yi yiwi leen ci jàmm ñu dellu ca ña leen yónni waaye pool ak barnabaas des ci antiyos di jàngale ak di xamle xabaar bu baax bu kàddu boroom bi ñoom ak ñeneen ñu bari pool ne barnabaas nan dellu seeti mbokk ya ca dëkk yépp fu nu masa yégle kàddu borom bi ba gis ni ñu def barnabaas nag bëggoon naa yóbbaale yowaana mi ñuy waxit màrk waaye pool dafa lànk ne matul ñu yóbbu ki nu wàccoon ca pamfili ba àndul woon ak nun ca liggéey ba noonu ñu xuloo ba far tàggoo barnabaas yóbbaale màrk ñu dugg gaal jëm sipar pool tànn silaas dem mbokk ya dénk leen ci yiwu borom bi mu jaar ci diwaanu siri ak silisi di dëgëral mboolooy ñi gëm